teer bu man Sonko jëbbal conseil constitutionnel dossier de candidature am donte ne direction générale des élections bañ na ko jox ay fiche de parrainage teg ci caisse de dépôt ak consignation bañ ko jox it attestation bi woone ni joxe na caution. su ma juumalee sax ci mandataire am wax mooy que mooy dossier bi ñu njëkk a déposé. ca conseil constitutionnel. moo ne yile document faw mu nekk ci biir dossier yi bu ñu sukkandikoo ci article L 121. bu code électoral bu Sénégal Djibril Gningue xam-xamam màcc ci wàllum élection jàpp ni ba tey candidature bu Ousmane Sonko war nañ ko mën a nangu. constat yi am na buy wane ne ñoom dem nañu dañu leen bañ a recevoir wala dañu leen a bañ a remettre euh, fiche parrainage yi naka noonu aussi fële ca CDC ñu am constat d'huissier plus la quittance déjà buy wane ne ñoom déjà demoon nañu fa. conseil constitutionnel war na mën a nangu lool. mu di dossier bu bëree ay jàngat jeexital bi la mbir doon lu am solo ci suñu démocratie. su conseil constitutionnel rejeté malgré loolu malgré décision wu tribunal bu bu Ziguinchor bu Dakar malgré décision wu Sénat bu boobaa effectivement loolu dafay gàkkal élection ci Sénégal day gàkkal démocratie Sénégal. ay waxtu rek des ngir ñu càmbar dossier de parrainage yi. candidat yu bëre nekk ci ay procédure judiciaire li nga xam ne moom la dialogue politique bi décidé ne euh, buñ la gracier rek war nga mën a nekkaat candidat euh, réglé wul problème bi entièrement. conseil constitutionnel dana amal ab tirage au sort aljuma gi ngir xam yan candidat la ñuy njëkkee saytul seen limu parrain ngir ñu mën a bokk ci falum njiitum réew bu atum 2024